Serigne Cheikh Bara la xaat Abdoulaye Mbacke dundal Sëñ Bara dundal Sëñ Fallou Ahmed dundal Sëñ Fallou Ahmed dundal seen xaalu nang ko matale ana soppay Serigne Bara maami Serigne Amar Mbacke sëñ sëñ Modou su ñëwee pëf di naa dalal gan ñi mën naa daloo gan ñi mën naa ñëwit ndax fii mooy atum maamam ndax sëñ Baara Doli mi ko jur sëñ Abdou Dia Doyoly waajuram soxna Dia Touré mi ko jur ak sëñ Modou Khary mii ñoo bokk jenn ndey soxna Dia Touré jur sëñ Abdou Dia Doyoly jur soñ Ibra ja jur jur jur soxna Fat Dia ñu bokk jenn ndey sëñ Modou Khary di seen nijaay Faati Bal la jur ko ñu wëlbatikuwaat bokk Abdou Khadir mi taaw maam Balaye sax muy seen maam di suñ maam tey jii ñoom ñii seen xalifa ci kër sëñ abdu Khadir mi taaw maam Balaye sax mooy jarbaatu borom dëkk bi muy sëñ Alaaji Mbàkke bu sa daam yaayam ak sama baay bokk waaye seen kër lañ koy màggale kon sëñ moodu bu ñëwee Pof di war na fee ñëw waaye day sama xarit bu yàgg ñuy wax lu bari loo xam ne boobu politique amul dara amut muy tukki yàgg am jom yàgg bañ ko not nit yàgg nekk sama xarit may toog ci moom ak sëñ xabban ak yeneen njabootu sëñ Modou Sa Dieng waaye mu yàgg baax yàgg maa bëgg di ma wax sama rakk ji keroog bi mu jëlee soxna mbeen muy doomi sëñ Modou daf ma daan wax buy tukki soxnaa mi del wétli soxna mbeen kër sëñ Modou dam heure bu ne dem naa ko heure bu ne dem naa ko këram heure bu ne toog naa ko këram waaye muy nit ku bëgg mbokk di nit ku baax dañ koy ñaanal ci bisu maamam bii mu ñëw yàlla na ko yàlla sàmm te jàppale ko te yokk ay ndombay tànkam ndax nit ku bëgg baax euh, boppam la. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, ñu ngi nuyu nuyoo bu tedd euh, xalifa général des mourides ñaanal ko mu yàgg fii ci wér buñ ko nuyoo ba noppi rek dugal leen ci ñépp waaye fii ci poof bi li soxna ami wax rek moom laay delloowaat fii sañ naa fee dalal gan ah sañ naa fee daloo gan ndax li ko waral wax na ko léegi nii euh, kenn ku ne xam ne borom dëkk bi mooy nijaay sama maam Serigne du Dia lan bokk euh, kenn duutu ko laajati waaye nag mbokkoo dafa amoon xam nga mbokk dana am ba pare mbokkoo te loolu ñu dund ko ñoom ba tax na euh, dëkk la boo xam ne xamee ko ak doyali gële waaye nag mu am kàddu yu bari yoo xam ne yëkkati na ko wax ko muy daanaka mën na noo wax ne bi mu ndaw ba léegi si sama kanam la yaroo euh, toujours moom laa koy tooñee waxtu wu ne euh, ndax daf ñoo daf ñoo taxoon lool fu nu mas toog fu nekk rek ñëw na nekk ci kanam soxna xujja bu ko defee moo soxna walo ñoom ñu naan bàjjan waayo dama leen ko daan tooñee loolu lépp nag ab taxawaay la boo xam ne euh, bu mu gis la ci waxtu wu nekk wàllu mag jooju la ma jàppee yàlla mi dogal dogal na it fu mu nekk fu nekk ak lu mu nekk lu ne ah, waxtu wu ne mi ngi jël téléphone di ma woo di ma ko yëgal kon nag yaakaar naa lim seede rek loolu lan dund ca dund googu it mooy li nga xam ne diggante mag ak rak ca yàgg na lool. wax na ko léegi nii ci soxna abi may na male eh, nee na ku ko jàppal soxna bi moom nga ko jàppal waaye moom dama koo xàmmiwut ak soxna bi ndax li tax xàmmiwu ma ko eh, mooy ñun ñëpp ñoo bokk menn maam yàlla nag mi ngi def it soxna Habib bi nga xamee ne ñëw na moom it ñu ànd ci yëngatu àdduna bi ah, yaakaar naa ne ñëwoon naa fi ci jamono yëngatu yi fii ah, ca jàpp naa ne taxawaay bi nga xam ne moom it soxna Ami moom it nekk na ko ci sama wet mooy taxawaayu jigéen ak càmmiñ waxtu wu nekk guddi ak bëccëg mi ngi may woo moom it téléphone ca xam na it sama digg ak yow moo jiitu waaye jiitu gim mu moom lu lu xam la lu ko leer la ba tax na it li ko war sama digg ak moom lépp mi ngi koy def tey jii Dakar la ma waroon a fekk waaye dama ne kat foofu di dama fa amub cër comme ñu fi ñëpp amee. Ah, at mi jàll ma nekkoon ci gàllankoor yoo xam ne tax ñëw ma waaye cër bi ma fi am tey maa waroon a xëy yandu dalal gan ñi yëpp waaye nag. Eh, yaakaar naa ne at mii di ñëw ñu ñaan yàlla loolu ñu mën koo def waaye sant nañ bu baax gërëm nañ ci ñëw gi nga xam ne rek ñëw nañ Euh, ci kaw sunu dëkk war a dalal gan ñi war a daloo gan ñi waaw kon nag ni mu ko waxee rek kontaan bu baax soxna bi yow sa taxawaay rafet na lool waaw soxna si sawit seen taxawaay Rama ak soxna jaaro ñoom ak euh, Oumy ñoom ñi nga xam ne tamit euh, yàgg na noo ànd ak moom ak sama jigéen bii di sama xarit du soog a ñëw soxna Thiam bi waaye ànd ak sëñ Bass ak Ibrahima ñoom ak Pakala ak Abdoulaye Gaye ñoom ñoom ñëpp it ñu ànd ci liggéey bi nga xam ne tamit mooy jàppale président Macky Sall kon nag ma doon wax ne ñeneen ñëw na àndaat ci délégation bi ndax fu ma fekk fu nekk rek duggaa nañ ci biir délégation bi euh, di leen sant di leen gërëm bu baax a baax yéen di leen gërëm ci seen taxawaay ci man ndax waxtu wu nekk fu ma taxaw fu ne yéen a sama wet kon sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen di ñaan yàlla ñu fekk ko ay déwén ay déwén di nuyu mbooleem ku fi daje ci suba ba léegi ndax ñi fi ñëw bari na sëñ Modou ñu ngi lay delloo cant bu baax soxna abi nee na mi ngi lay delloo cant ndax nee na moom moo la ameel cant ndax dangay magam di xaritam ba noppi jàpp te déplacement dafa metti lool waaye nag dangaa xam ne bis bi yaa ngi ñu na ko bokk kon loo ci def sa bis nga ko def ndax kër ga nga jóge ak gii kër génn kër rek la ah may sant bu baax honorable Matar Diop waaye di sant sama doom Ngaye Ngaye mi moom ma bëgg Matar Diop dafa dajeeg man kër sëñ Galaskal Toom daan ma soxna mi ngay damaa song di ma attaqué ndax yow ne ma lu tax joxoo soxna ami ci tabaski gi waaye bala ma fee génn dinaa la ko jox ma ne ko mataar jox neex na waaye joxi na neex nii nga ma def moo ma dàqal lépp ndax ngaye day suñu doom ñun ñëpp te baax lool mataar Diop ba may njëkk di ma teral di yónnee ci màggal pëf di boo mataar miinu ma mu yónni ngaye mi mm-hmm. muy jotal bu baax kon fa nekk palaasam la yàlla na ko fa yàlla di te may ko yeneen ndam ndax nag ñun dañuy liggéeyal président Macky Sall nekk ci département bi di ko xëyal di ko gontal kon képp ku nekk ci wetu président Macky Sall mu dénk la ndombay tànk soo suñu amee bis suñ la gisul gis sa ndaw boo ko yëgee naw nañ la boo ko yëgul naw nañ la ndax nag kudd fàtte ñaar ki ko jox mu lekk ak ki ko kut te nag ñun xam nañ fi ñu jëm te xam nañ fi ñu jóge te xam nañ li ñuy wax te ñeme nañ ci kon ñi nga xam ne ñooy jàppale président Macky Sall ci dëkk bi te bu njabootu président Macky Sall xewlee ñu gesoo gis leen mënuñu leen a ñàkk sant àll si la barki démb la yónnee sama kër yónnee fa teraanga ju rëy moom day sama mbokk di sama xarit yàgg ma jàppale lool ca bam mettee ndax booba maa ngi sëy sëñ bi nekk fi ma ne ci kër gu mag mu di ma dimbali booba ba mettee la ma laa ko xamoon moom ma ko sant bu baax di ko gërëm waaye di sant monsieur le maire Abdou Lahad Ka ndax tàgge bu ne am na jàppal diw Abdou Lahad lim ma defal moo ëpp ay milliards ndax ni askan wi ñu bokk muy pëf di Abdou Lahad Ka bu ñu amee bis damay woo téléphone ne ma soxna mi lu sëriñ si bëgg bu yeb lamp ya mag may woo ne ma soxna mi làmp yaa ngi dem bu tam jotee bu yónnee nagu tam bi du ko jox numéro am numéro bu dëkk bi sama numéro la koy jox maay coordonné ak moom ba mu wàcc nag wi ci penc mi barki démb bi mu xoolee ba xam ne dëkk bi dem bi ba dem ci tali bi dina am ay jafe-jafe bil ba ma ngi ko wute ji Tàmba di andi ko mu defar yoon wi ba ñu ñëpp am fuñ mën a jaar ñu sant ci yàlla lool keroog bi ñu bëggee ay làmp daf ñoo jox ba jox ñu làmp yoo xam ne kilifa yi dañ ko waroon a fasoon ko yéenee jënd ci seen poos ndax ni sëñ bi dimbalee ñëpp la leen dimbalee te nag ñun pëf di lañ am ku ñu ko jàppal ñu jàpp la waaye Abdou Lahad Ka jàpp nañu ci bokk jàpp nañu ci boole gi ñu yàlla booleeg moom jàpp nañu ci liñ ko dénk dëkk bi te ñu am ci cër mu di ñu ko jox kon ñun dañ koy sant baax di ko gërëm di sant waa 100 pour cent Abdou Lahad Ka délégation bu mag lañ fi def ci suba ba léegi ñi ngeeg man te nag soo àndee ay nit di liggéey su ngeen doxee tuuti dinga nga kenn ku ne di nga xam kan mooy kan waaye ñun ñi ànd ñun ñëpp a bokk ndey fu ma nekkul soxna saaxo mën na maa wut fu ma nekkul coom bi mën na maa wut fu ma nekkul asumaake mën na maa wut soxna daba saa di noonu ñun ñëpp ñu ànd kon sëñ Modou bu toogee di sama xalifa fii di atum maamam kon war naa koo seereel li nga xamante ne sii jóg na fi ba ñëw fi ngir bokk gi ma yàlla boole ak moom ma di ko seereel ne ko luñ ma defal moo tax moom lañ ko defal ndax ku teral sa mbokk la teral may nuyu Basirou Gueye bu baax ndax moom sama sang la sëñ Saliou Gueye waajuram sama nijaay di nit ku baax di sama sang bu ma amal njariñ nag kon maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant mboolem ñi fi daje ndax ci suba ba léegi ñi fi ñëw bari na kilifa yi ma fi seet bari na ñu jóge Dakar ñëw fi bari na coordonnateur Boubacar saw présidente Réna Fat ata Sénégal léegi la fi ñëw jóge dakaar kon man mënumaa fay nit ñi mënumaa fay tamit sama famille ndax gis nga kenn mënu dara kuñ dimbali rek am sama mbokk yi niñ ma def ak fiñ ma teg mënuma leen a fay tey xaw ma kan gu naan kaasum ndox ngir sama rakk yeeg sama mag yi ak sama doomi ndey ak mboolem xale yi 100 pour bi ñoom ñëpp a fi daje tey kenn ku nekk def ko muy sa kon man mënumaa fay nit ñi man sëñ moo li ma nit ñi lebal parce que Serigne Fall lebalu ma leen ko li ma nit ñi defal lebalu ma leen ko lebalu ma leen ko kon ñuy sant bu baax man ak sama mag ndax kii ñoo bokk ndey baay maa topp ci moom kon bu sëñ moo du daggee taam yebal délégation ci suba ñu jiit si ko fi ñëw yendoog ñun ñuy wax mu teewal jëmmam ji te ëtt bi di ëttu maamam kon bu ñu ay nit defalee lu baax dañ koy wax bu ñu nit defalee lu baax dañ koy wax seereel ko sëñ Modou ba mu xam ne ñii kat ñi ngi ñuy jàppale kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. sëñ Modou miñ fi fekk muy suñu kilifa di jégglu nag toogaay bi ci kaw honorable nag wax dëgg yàlla moo fi yebal ci soxna Ami xëy na dañoo am xew waaye dana woon sax naa fi yendu yendoog moom ci bis bi ba lépp jeex waaye dañoo amoon xew ci suba ba léegi ci laa nekkoon fa laa jóge ñëw honorable nag nee na mi ngi sant soxna Ami bu baax mi ngi koy sant bu baax daal te xam ne daal tey ji teewaayam moo fi waroon fan yi plénière yi ak kenn kenn ku ne gis nga coono yi nekk fan yi moo tax waaye dafa bëggoon a taal otoom teew si waaye comme fekk naa fi sëñ bi sëñ bi dina ko teewaaleel rek ndax lépp benn la def ci ak sotti ci la rek maa ngi jégalu baax nag damaa mënewul wax ci micro